nii ñoom ñu ngi tudd les buubu ñoom ñu ngi jógee ba France ñëw fii dajale seen kàttan ak seen doole ngir ñëw jàppale nit ñi nga xam ne dañoo dëkkee ci dëkk yi nga xam ne dëkk yu ndóol la kon nag ñoom tamit ñu ngi leen sant bu baax ci teewaay bi waaye di fàttali rek ne mouvement Espace Bodès bi nga xam ne aada madame Koundoul moo ko jiite ñun ñu ànd ceeg moom mouvement la boo xamante ne nii ñu bañ a jaawale ndax moom du mouvement politique hmm. waaw mouvement la boo xam ne li ko tax a jug mooy jàppale askanam buñ la jàppale askan mooy xam nañ ne ñun suñu dëkk yi ñu dëkkee boo xoolee askan bi bëri na ay jafe-jafe yoo xam ne nekk na ci biir lu mel ni wàllu jàng lu mel ni wàllu faj lu mel ni wàllu xiif léegi ci yooyu yëpp nag aada ak équipe bi muy àndal mooy sama naataango yi yëpp ci ginnaaw ñuy dajale seen doole seen am-am ak seen mën-mën ngir bëgg koy jàppale seeni i ak seeni mag ak seen i yaay kon nag loolu mooy objectif premier bi nga xamante ni moom moo tax a jug mouvement EPAS BODES kon nag ñu xamee ko noonu bañ ko jàppee ne mouvement politique la déedéet mouvement bi politique wul waaye li ko tax a jug rek mooy comme ni ma leen ko waxee. léegi nag comme ni mu ko waxee rek ci rappel nee na depuis dañ ko créé ci boobu nag ba léegi chaque année gis ngeen événement yi nga xam ne ñu ngi ko fi def. boo xoolee ci hôpital docteur Mbaye bi dispensaire du moins di ngeen gis ne daanañ fa def ay don du sang di fi def ay campagne de vaccination yooyu yëpp ngeen gis loo xamante ne nii la ñu ngi koy def waaye ci dooley mouvement bi la maanaam mouvement bi li muy def nii ñu xam ne kenn jàppalewu leen amul benn politicien wala kenn koo xamante ni dafa yor doole ñëw di jox aada pour muy def ci mouvement bi déedéet na xam ne lii muy def nii ci xaalis boppam lay jël moom ak ñi mu àndal ñu koy liggéey kon nag loolu lu mat a leeral la léegi ngir bañ a guddal rek te ñu xam ne tamit mouvement bi tamit école la ndax bu ñu ne école mooy ñi fi daje ñëpp ñii jàng nañ ba egg benn niveau ñii jànguñ waaye teewul ne saa su ne dañuy fexe di déggoo di waxtaan di sottante ay xalaat ngir xool nan lañ mën a def ba gën a améliorer ñu ni ñuy def ba géejawaay wala suñu gox bi mën a bokk ci gox yoo xam ne yu ñuy tudd la wala gox yoo xam ne dañuy doon référence ci dëkk bi loolu tamit ñu xamee ko noonu te bàyyi ci xel bu baax te di ñaan yéen mag ñi ngeen ñaanal bu baax mouvement bi jëm ci kanam ndax mouvement bi comme ni mu ko waxee rek li ko tax a jug dëgg mooy jàppale askan bi Sénégal nag dañoo baaxoo kuñ gis ngay def mouvement rek ñu yaakaar ne da ngay waaye bii bokku ci bii politique wul farul ci benn parti déedéet ay xale ya yoo xam ne dañoo am seen yéene di jëf seen doole ak seen xam-xam ngir di jàppale seen nit ñu dëkkal loolu mooy li nga xam ne moo moo moo moo tax a jóg mouvement ngir bañ a guddal kon xam naa damay jox biram rek bu ko defee ñu mën a woo suñu mbokk sapeur yi ñoom ñu ñëw sapeur yi nag leen tax a jóg mooy surtout yéen suñu yaay comme yéenay faral di nekk ci kër yi saa su nekk dañuy dañuy dañ leen bëgg a wan yenn saa yi dina am ay jafe-jafe yoo xam day am ci biir kër gi bu ko defee ñoom bu ñëwee dinañ ñu expliquer bu jafe-jafe yooyu amee nan ngeen it ban taxawaay ngeen ciy am laata ngeen di jël nit ki yóbbu ko hôpital wala laata ñuy woote euh, ambulance wala dara mu fay ñëw kon dañ leen di ñaan ci yéen ñëpp ngeen lu bu baax sapeur yi li ñuy liggéey ngir bu ko defee bu ëllëgee cas bu amatee ci kër yi comme yéen suñu yaay yéen faral di nekk kër yi tout le ngeen mën a ci def jéego yu njëkk balaa hôpital di ñëw wala balaa ambulance di ñëw kon ba ngay jox